أياس مني الله عند جولي هب لي زين ناديته بيا ولي asalaamaaleykum mbokku téléspectateur ma Fatihul Bichri international daleen ak jàmm ci seen jotaayu xibaar bi ñu dippee les échos du magal ñu leen fi taataanal lépp luy xibaar ci jëm ci màggalu Tuubaa gi di leen ko dégtal ci ma Fatihul Bichri international dañ koy dooree ak euh, doxantu bi nga xam ne Serigne Moustapha Ndiaye doxantu loon nañu ko foofu ci jumaa ja di euh, tase fa ak ñoo xam ne ñu ngi jógee nag ci dëkk boobu ñuy wax Allemagne déggoon ne fii ci Sénégal am na dëkk boo xam ne mi ngi tudd Touba Cheikh Amadou Bamba nekk fi waaye itam magal màggal bu jotee ay millions nit dinañ fi daje ñu bëggoon a ñëw nag ba gis loolu ñuy wax ndax euh, teg seen bët ndax lu dëppoo ak euh, li ñuy dégg la waaye itam euh, wax nañu ne ñu ñu ñëwee Touba yéemu nañ waaye itam am nañu loo xam ne mooy mbégte ci ni ñu gisee dëkk bi di Touba ñu teewlu ko reportage yu Serigne Moustapha Ndiaye. Wir wegen äh, um das Land Senegal kennenzulernen. Und wir sind sehr beeindruckt, was hier so kurz vor der großen Wallfahrt abläuft. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass hier vier oder fünf Millionen Leute am Samstag sind, die äh, so religiös sind, dass sie von weit herkommen und diese Wallfahrtsstätte besuchen, auch weil sie einer bestimmten muslimischen Religion angehören. mu nekk nii kontaan trop pour mu ñëw bi si Sénégal mais jàll bu mu jàll Touba bi daal tamit neex na ko trop mais lu ko gën a frappé mooy déjà moo xam na ne samedi la màggal bi te léegi mu ngi commencé comprendre buñ ko waxee ne samedi ay cinq six millions de euh, de sénégalais ou bien du monde entier nañ ñëw fii Touba léegi déjà à partir de mercredi tey bi moom mu ngi koy gis quoi que loolu dëgg la am na aperçu bi te vraiment il comprend maintenant ferveur bu nit yi am ak croyance parce que pur indi fi 5 millions de personnes te tey la mu gis déjà bu ñu jógee Saint-Louis dugg fii lu mu gis si yoon bi gars yi di xaar oto yi di ñëw alors loolu moo ko jaaxal quoi nee na vraiment il est très ému waaw vraiment mu gis na encore ngëm bu Sénégalais yi gëm quoi si waa Cheikh Khadim. Uh, one sentence? Uh, we are very proud. to be here a woman. <laughs> it's beautiful for us and very interesting this mosque. It's beautiful. Thank you very much. Euh, waaw macha allah ñu jaajëfal bu baax a baax Serigne Moustapha Ndiaye moom mi nga xam ne moo ñu demaloon ci euh, jumaay Touba jooju taje fa ak ñooñu nga xam ne ñu ngi jóge ci réewum Allemagne bu ñu fa jogee dañuy dem seeti Serigne euh, Cheikh Abdou Mbacke moom mi nga xam ne moo yor wàllum assurance ci màggalu Touba 2016 gi wax nañu lëkkaloo naak ñi nga xam ne ñooy kilifay Touba yi ba ñu dajalee lu mat 490 millions jëmale ko ci assurance u màggal gi waaye itam loolu du ca yem dañuy def li nga xamante ni mooy sàkku képp ki nga xam ne bëgg nga cee participer rek ci alal jooju nga dolli ci envoyé ko ci compte bancaire boobu ñu leen koy euh, envoyé nga xam ne képp ku ñëw am ndog ci yoon bi muy accident wala nga faatu ci yoon bi dina yëkkati alal ju takku daal di koy dédommagé daal di koy jàppale sa njaboot ci nga mën a faju waaye itam ci nga mën a euh, ne ànd ak sa wér-gi-yaram ba ñëwaat fii ci Touba Mbacké ñu dem teewlu reportage boobu dellu siwaat waaw sëriñ Xaadim comme ni nga ko waxee loolu de lu lu lu bees la luy soog a bëgg a ci màggal gi ndax ni ñu ko waxee ku ne màggal wax màggali wala màggal si ku ne màggal si itam daal di wax déplacement euh, déplacement ci bitim réew ak ci biir réew mi yépp daal di wax tali bi wax lu mel ni saxaar gi te loolu itam yàlla dogal na ni seeni déplacement moo ay loraangeek ay tolof-tolof ñu ànd moo xam lu la mën a tax a jóg ñu gis ne chaque màggal bu amee dina am ñuy jóg ngir siyaare si wala jóg ngir yàlla wala moo xam lu la taxa a jóg ngir jëm si Touba rek wala di dellu euh, moo tolof tolof yi am ci tali bi ñoo ànd ci gàttal ñu ngi jàpp une semaine ñetti fan avant màggal bisu màggal ñetti fan après màggal mu war a doon prime yi itam bu mag a mag boo xam ne ndax saxaar geek yoon wi lépp lay lay lay couvrir ak biir Touba même waaw ci biir loolu nag la ñuy waxee ni kon euh, am na prime bu am solo buñ ci war a fay. prime boobu dem na ba ki ñu waxalagun te méngoog niñ ko bëggee te mën a jël risques yi nga xam ne risques yi taxaw na ba un milliard ci côté am mi ngi ciy laaj quatre cent quatre vingt dix millions muy euh, AXA assurance lañ amagun am nañu yeneen partenaire waaye dañoo juboogul ci proposition ya ñuy def ak ndax méngoo naag niñ ko bëggeem déet euh, ci loolu daal moo taxawagun loolu itam pour fay prime bi ñetti anam moo amoon benn bi mooy sëñ bi woote màggal gi fay ko ñaareel bi mooy nit ñi fayal seen bopp comme ni ñu koy defee ci yeneen événement ni ki ajug màkk ak yeneen ku ne xam na ne booy dem màkk sa devise da nga ciy fayaale assurance euh, walla bon volonté yeeg societé yi murid yi nit ñi bëgg lu baax te mën a liggéeyal yàlla ci mbindeef yi fay ko bi ñu seetee loolu itam euh, gis nañ ni sëñ bi fi mu ne nii mi ngi engagé ay chantier yu bari yor ay liggéey yu mag a mag ni ki université bi ni ki jumaay Tuubaa ji ñu jàkkaar lool ni ki Ndakaaru ak kër sëñ kooku yëkkatiloo prime bu toll noonu di ko fayloo du du yenn wul sax maanaa te nuyu itam joxunu ko ay addiya ngir mu defaat ko ci noonu macha allah yaakaar naa leeral yooyu euh, Serigne Cheikh Abdou Mbacke indi am na solo lool bu ñu fa jógee nag dañuy dem ci caravane illa Touba bi nga xam ne Bichri TV moo koy amal at mu jot daaw ñu defoon ko waaye itam ren euh, Serigne euh, ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamed Fall ànd ceeg Serigne Ndiaga Seck ak Serigne Gora ñoom defal nañ ñu ko jógee Dakar ba Touba waaye lépp rek war leen ko ci yoon wi maanaam jënd meeg jaay ni nga xamante ne nii moom la circulation bi doxee ak lépp li nga xam ne nii moo xew ci yoonu Touba bi ñi nga xam ne ñi ngi ma dëkk. nga jóge ci dëkk yëpp di dëgmal fii ci tu dëkk bii di Touba ngir ñëw santale Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo ko defal xéewal ci bésub fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu dem teelu reportage boobu dellu ci waat

Euh, ñëw ak yéen tey fas yéene defal li nga xamante ne maanaam euh, lu raw leen leen defaloon daaw ba suñu boobam dogal euh, fi mu nekk ñu fas yéene defal ngeen benn caravane mi ñuy duppe Ila Touba fi ñu taxaw nag moo di bundu Pikine bundu Pikine nag boo ko déggee da di bi nga xam daanaka ñu bari bu ñu tukki si région du Sénégal fi la ñuy jëlee oto rawatina ñu bëri dem si Touba màggal wala màggal leen si doomi Sëñ Tuubaa fi la ñuy jëlee oto fi nag daanaka ba tey Carrefour tamit bi nga xam daanaka bëri waa na commerçant yi nekk di te ni ma ko waxee sànq rek ñu bëri fi la ñuy jëlee oto léegi nañu daal di ànd ak suñu kanamaan sëñ Mor nag ñu daal di xool mbokk taalibé yi incha allah nan la ñuy dundee bi ak li nga xam maanaam chauffeur yi wàllu prix ak tam ñoom chauffeur seen jëm bopp seen wàllu dawal mettiwul daal yoon wi moom am na jàmm ak salaam te jàmm ak salaam moo ci am incha bu soobee yàlla soob yonent bi incha allah jàmm ak salaam rek moo ci am bu neexee yàlla yonent ci barke borom Touba. waaw ñuy xaar gane sëñ Touba yi de parce que ñu sant sëriñ Touba wér bi rek ca xam lépp moom rek bu doon moom moom dara du jëkk waaw ah, di ko ñaanal bu baax a baax wax yàlla taas ñu ci barkeem rek ci barke Serigne Touba di la ñaanal wax yéen nag jërë ngeen jëf ndax clients yi ñu ngi ñëw bu baax di naan café yu demee noonu wala wala ñu ngi ñëw bu baax a baax a baax a waaw ñu ngi sant bu wér wér ñu ngi ñëw di wax dëgg yàlla waaw ñu jaajëfal bu baax a baax Serigne Mouhamed Fall moom mi nga xam ne moo ñu nekkaloon foofu ci caravane illa Touba bu ñu fa jógee dañuy dem foofu nga xam ne mooy Bambey xam ngeen ne wàccaayu magal gi saa yu jotee dañu fay amal ay bernde ay jàngi xasida waaye itam di fàttali njàngaleem du Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lépp di ko gunge gan ñi nga xam ne ñoo jëm Touba Serigne Pape Djibril Fall defal nañu taxaw seetlu bu am solo foofu ca Bambey ñu teewlu ko dellusiwaat. Euh, mbokk yi téléspectateurs yi ñoo ngi fii ci Bambey fas yéene ànd ak yéen dund moom jamono yu am solo yi nga xamante ni ñii nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee fii dañ ko tàmbali di ko di ko def di ci santle Cheikhul Khadim euh, sunu borom subhaanahu wa fii ci Bambey noonu lañ koy defee tamit ci dëkk yu bëri yu fasantikoo ci biir réew mi bés boo xamante ni weeru safar teru na daanaka soxla seen soxla yëpp day aju rek ci nekk ci waajal bés boobu nga xamante ni mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar nga xamante ni ci la euh, sunu yaakaar ji cheikhul xaddim jaayante woon ak sunu borom sunu borom defal ko ci xéwal yu màgg yooyu ba mu daal di wax ne képp koo xamante ni sa mbégte sama bos la bu bés bi ñëwatee nag ma santale sunu borom mu nekk ay jamono yoo xamante ni jamono yu am solo la nekk jamono yoo xamante ni tamit léegi nga xamante ni yàlla dénk na leen ko ci xéwal dañ koy fas yéene jël daal di koy bokk ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy doomu aadama yi te amul dara loo xamante ni xeeb nañ ko ci waaye amul dara loo xamante ni yéem nañu ko ci donc loolu moo nekk loo xamante ni lu am solo la ñu koy def fii ci Bambey ci fukki fan ak juróom benn ci weeru safar noonu lañ koy defee incha allahu taala fële nga xamante ni moom mooy njaareem ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar ngir loolu yëpp tamit di waajal rek bés bu màgg bi nga xamante ni mooy fukkeelu fan beeg juróom-ñett ñu koy defee ci dëkk bu sell bi nga xamante ni moom mooy Touba ni ngeen ko gisee nii lañuy ànd ak yéen daal daal di jaar ci ay Euh, ci ay euh, barab yu bari ci biir euh, Bambey ba nii nga xamante noonu la ñuy dem gàttandoo ji ci garage ba nga xamante ni bu ñu waxee garage wax ñi nga xamante ni ñooy tukki fas yéene jóge fu nekk ci Sénégal waaye di jaar fii nga xamante ni moom mooy Bambey ngir dem fi nga xamante ni mooy Touba waaye bu ñu agsee fii xéewal yi dinañ fi fekk xéewal yu yemb ba noppi ñu daal di koy fas yéene bokk ak ñoom ngir gën leen a kàttanal waaye tamit bokk ak ñoom mbégte mi nga xamante ni sunu borom dogal na ko fii nga xamante ni mooy réewum Sénégal wala sax Afrique wala sax àdduna yëpp bokk ko ndax Cheikhul Khadim moo toll noonu. ñuy jaajëfal bu baax a baax Pape Djibril moom mi nga xam ne moo ñu defal euh, taxaw seetlu am solo boobu foofu ca Bambey dañuy des ba tey ci Bambey ak euh, Serigne Mamadou Niang moom mi nga xam ne mooy jëruñu daayira bi ñëwaat na ci solos ndaje yooyu waaye itam ci cant gi nga xam ne ñu ngi koy euh, cantale Cheikh Amadou Bamba boromam ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu teewlu euh, jëwriñu daayira boobu. maa sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu jaayante ak Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul di ko sant bu baax ci ngëneelu yi mu ñu defal ak tawfeex gi mu ñu dimbalee mu boolem ci liggéeyam bii nga xam ne moom la jógoon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa te liggéeyal ko. mooy seet bisam bii ñu jëfal ko ci ni nga xam ne noonu la ko bëggee xam ngeen ne Bambey nag li ma di wax chaque jour rek benn la ci département yi bokk ci Touba kon Touba bu dee province Bambey benn la département am moo tax fii waa kër Cheikhul Khadim ma fi ne ay taalibe ma fi ne ñu ko gëm te fong ko te yaakaar ko maa ngi jënd ak sëñ Malick bi mi nga xam ne moom xam nga ne depuis ba liggéey bi tàmbalee ba léegi mu ngi suñu biir ndax xam ngeen ne ca. Euh, yooyu weeru safar teroo rek ca gaaw bu ci njëkk lañ def setal bu rëy boo xam ne ña ngi ko tàmbalee ca gannaaw euh, wetu wetu Kër Maas jëm ba tele bi nga xam ne moo nekk ci Sonatel bi ñu setal fi ñu mën a setal yépp bay fépp lay ko tame ko randal yi nga xam ne lépp mën na faa lore ndax xam ngeen ne set dafa bokk ci diine loolu ñun ak suñu mbokk jub yëpp ak suñ mbokk taalibe yi ko àndoon muy lu rëy ba tey jii yi nga xamante ne bii jël nañu ñaari téeméeri ganaar ak ñaari nag defar ko ba mu jekk lépp ñu def ko ay sandwich defar ay beñe yoo xamante ni toll na ci ñeent fukki junni defar ay ndox defar ay kafe loolu yëpp ngir bëgg rek gànn Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo jëm ci màggal gi bu ñu tàbbee ci dëkkam dëkkam bii di tubaa dëkkam bi di Touba nga xam ne Bambey benn la ci ay ay ay département am ñu tàmbali yëg xéewali Sëriñ Tuubaa yi Euh, bu ñu jógee foofu ci Bambey dañuy ñëwaat fii ci Touba xam ngeen ne le président de la République monsieur Macky Sall tey jóge na foofu ca Ndakaaru dagg na sax la ñu wax tukkeem boobu nga xam ne dana ko amal bitim réew ñëw fii ci Touba ngir ziar si Serigne si euh, Sidi Mokhtar ci màggal gi xam ngeen ne tey nag wàcc na ci héliport bi juróom-benn waxtu jotee ci ngoon ba tegal ay simili ñi nga xam ne ñooy directeur généraux yi nekk ci dëkk bi waaye itam ñëpp ñu yëngu ci wàllu politique di ko jàppale wàccoon nañ fa ak ay seen militant takk dere itam takk euh, takk woon nañ fa ngir saytu kaaraange gi ba lépp yemb ñu daal di dem euh, ci teertu boobu dellu si waat léegi mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi leen di dellu di leen ziar rawatina yéen ñi nga xamante ni yéenay topp jamono bu nekk seen euh, télévision Mafatihul Bichri TV ñu fas yéene rek ànd ak yéen ni ñu leen ko digee woon lépp loo xamante ni dina xew ci barab bu sell bi di Touba fas nañ leen ko wan ci bés bu màgg bi nga xamante ni ci lañ jëm noonu lañ leen ko diggee woon boobu ba tey tamit yéen ñi nga xamante ni yàlla suñu borom dogal na ngeen ñuy topp dara ump leen ci li nga xamante ni moo ngi xew ci dëkk bi waaye nag eh, ñu leen ko waxee jamono bi saa bu dikkee rek lépp loo xamante nii muy kilifa diine muy kilifa aada muy kilifa àdduna dañ koy def ñoom ñëpp lépp dañ koy bàyyi daal di ñëw daal di ñëw daal di fas yéene saafonte ak ñi nga xamante ni ñoom la sunu borom teg ci dëkk bi te kenn jiituwu ci ki nga xamante ni moom mooy chersi lu Muxtaar loolu tamit nekk loo xamante ni lu am solo la ni ngeen ko gisee fan yii kujje gi muy ci wàllu politique ñoom ñëpp kenn par kenn ñëw nañ fi saafonte ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa dëkk bi daal di indi seen ziar daal di tamit yeesalaat daal di yeesalaat seen kóllëre seen diggante ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu noonu tamit ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi lépp loo xamante ni moo ngi ko doon def bàyyi na ko ndaxte ayu bés bi ñu génn calendrier bu chargé la amoon ndax moo ngi woon fi nga xamante ni moom mooy Washington daal di fay jógee daal dem ci li nga xamante ni moom mooy COP 22 bi ci Maroc ba mu fa jógee waaye daanaka sax ndaje ma jeexul waaye fa la ko bàyyi ngir ñëw saafonte ak ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Sidil Mokhtar saafonte ak ki nga xamante ni moom mooy njabootu Cheikhul Khadim yeesalaat kóllëreem tamit ci digganteem ak Serigne Touba ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi tamit di président Macky Sall lépp li nga xamante ni moo ngi ko doon def bàyyi na ko ndaxte ñu génn ci ayu bés boo xamante ni. calendrier bu chargé la amoon daal di nekkoon fi nga xamante ni moom mooy Amérique ci Washington waaye ba mu fa jógee tamit demoon ci ndaje mi nga xamante ni moo doon am am Maroc muy COP 22 bi waaye daanaka ndaje ma jeexul waaye fa ko bàyyi daal di xam ne ñëw ci dëkk bi nga xamante ni moom mooy Touba. ñëw daal di ñëw def def si li nga xamante ni moom mooy ziar ñëw daal di saafonte ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Sidil Mokhtar ñëw daal di euh, yeesal tamit kóllëreem ak ñi nga xamante ni ñooy njabootu cheikhul xadim loolu nekk loo xamante ni mënta ñàkk ndaxte Serigne Touba moo toll noonu waaye bés bi moo toll noonu te lu am solo la ci waxoon muy képp koo xamante ni mbégam sa bos la rek mbégam moom sa bos la bu bés bi ñëwee na nga ko santale suñu borom subhaanahu wa jamono yi yëpp yéen a ngi gis ñi nga xamante ni ñoo aju ci kujje gi kenn ku ci nekk ñëw na fi indi ziyaaram daal di ñëw saafonteeg njabootu cheikhul xadim président Macky Sall tamit noonu la ko fas yéenee defee bi tey jii nga tey jii bi euh, juróom benni waxtu jotee ci ngoon ci la wàcc ci dëkk bi nga xamante ni moom mooy Touba bi mu ñëwee nag lépp loo ñëpp ñi nga xamante ni moo ngi seq ak ñoom ay teraanga ñëpp ñoo xamante ni moo ngi seq ak ñoom ay jàmm wala ñëpp ñi nga xamante ni. moo ngi seq ak ñoom ci wàllu politique wala sax lu jéggi lool ndaxte ki nga xamante ni moom mooy xalif général di Cheikh Sidil Mokhtar joxe woon na ci ndigal lu am solo ne nañ ko ko teerul daal di ko koy teralal ni nga xamante ni noonu la dëppoo ak sunna yonente bi salaatu wasalaam muy boo amee gan na nga koo teral te loolu nekk loo xamante ni baax la fi nga xamante ni moom mooy Touba saa bu fi gan duggee rek dinañ la teeru daal di lay teral rawatina ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall noonu lañ ko defee mbooloo mu takku daal di génn daal di koy dala daal di koy gàttandu daal di koy gunge ba fi nga xamante ni moom mooy résident Cheikhul Khadim di kër mag moom ñuy jaajëfal Pape Djibril Fall moom nga xamante ne nii moo ñu doon saytul lépp lu xewee foofu ba tey bu ñu dañuy des ci tertuk président de la république monsieur Macky Sall bi mu jógee foofu ca héliport euh, dem na fi nga xam ne mooy résidence Khadimou Rassoul fekk fa njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul gi waaye itam Serigne Mountakha mi nga xam ne moo ko fa jiite julli waaye ak ñëpp ñi nga xamante ne ni ñoo koy teeru mooy ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci wàllum politique ñi nga xam ne ñoo yor ay responsabilité fii ci dëkk bi ci Touba ñu dem ca ndaje moomu dellu siwaat président de la république daal di agsi fii nga xamante ni moom mooy kër mag moom di résident Cheikhul Khadim daal di fiy fekk njabootu Serigne Touba yëpp daal di ñëw ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy njabootu. buñ ne njabootu Serigne Touba ñëpp dugg nañ ci muy cheikh yi muy ñi nga xamante ni euh, ñëpp ñoom ñoo bokk Serigne Touba ñoom ñëpp ci ndigalu xalif général des Mourides ñu daal di ñëw ci barab bi nga xamante ni moom mooy kër mag moom daal di koy teerul ki nga xamante ni moom mooy président de la république ndigal loolu moom la xalif bi joxe woon dëkk bi yëpp daal di koy sàmmonte loolu nekk lu am solo waaye bi mu agsee tamit ci biir résidence bi euh, ginnaaw wax bi ñu discours yi nga xamante ni def nañ ko fi Serigne Bass Abdou Khader ci ndigalu xalif général des Mourides yëkkati na ay kàddu cant daal di koy dëgmal daal di koy dëgmal ci ki nga xamante ni moom mooy euh, président Macky Sall ci lépp li nga xamante ni naal na ko pour Touba ak lépp li nga xamante ni moo ngi koy jàppale dëkk bi di Touba. di dëkk bu sell di dëkku Serigne Touba loolu nekk loo xamante ni lu am solo la bi ñu noppee ci discours yi tamit ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mountakha Bachirou jiite na ko julli timis ci biir kër gi. ñu leen di jaajëfal bu baax mu mel ne ba tey dañuy des ci euh, teertug euh, njiitu réew mi moom mi nga xam ne bi mu jógee foofu ci résidence Khadimou Rassoul ànd naag Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre moom mi nga xam ne moo yor kàddu xalif général de Mourides Serigne Cheikh Sidi Mokhtar dem foofu ci jumaay Touba jullee euh, li nga xam ne ziar yu am solo ñu teewlu ci reportage Pape de Fall. ni ngeen ko gisee ci image yi daanaka bi ñu waxante li ñuy waxante ba pare sëriñ Bass Abdou Khadre daal di koy sant daal di koy gërëm ci lépp li nga xamante ni moo ngi koy def ci dëkk bi ak lépp li nga xamante ni tamit naal na ko ak yéen ak taxawaay bu am solo bi nga xamante ni tamit euh, ñi nga xamante ni moom mooy ay jëwriñam taxaw nañ ko ci màggal gi ba lépp ñu njort ne dina mucc ayib ndax kenn ku ci nekk lam sàmmoonte woon ca waajtaay wa jàpp nañ ne doxal na ko niñ ko ko digale woon loolu nekk loo xamante ni lu am solo la sëriñ Muntaxa Bachiru daal di daal di jiite ni ngeen koy gisee ci image yi sëriñ Muntaxa Bachiru daal di jiite timis waxtu timis ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall ginnaaw bi tamit bi gee jotee ànd na ak ki nga xamante ni moom mooy sëñ bas Abdou Khadre ñu daal di dem si biir jumaa ja daal di fay joxe li nga xamante ni moom mooy waxtu géew bi ñu noppee tamit ni ngeen koy gisee toujours ci image yi président Macky Sall ànd nag sëñ Bassirou Abdou Khadir ñu daal di dem daal di ziyaari barab bi nga xamante ni moom mooy barabu Cheikhul Khadim daal di rek njot ne président Macky Sall bu eggee ci barab bi nga xamante ni mooy barabu Serigne Touba ñaan yàlla sunu borom daal di def jàmm ci réew mi daal di defal yàlla daal di defal euh, sénégalais yëpp jàmm te loolu nekk na loo xamante ni mënta ñàkk ci jamono ji nga xamante ni àdduna yëngu na lool. waaye moom mu am ay naal yoo xamante ni yu rëy la te ñu jàpp ne bés bi ñu jëm nag bés boo xamante ni àttan na lu ne bu ko ci fasee rafet na njot ne suñu borom dina ko dogal ah. di leen jaajëfal bu baax euh, yéen mbokku téléspectateur ma fatixul Bichri international li moo fi ruse woon ci euh, ay xibaar jëm ci wàccaayu màggalu Tuuba gi euh, di jaajëfal bu baax Serigne Mor mi nga xam ne moo jàkkaarloo ñun ci caméra bi di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàppale ba li nga xamante ni nii ñoo ko fi dëgmal ci Tuuba mooy lépp lu fi ruse ci ay xibaar bañ leen ump ëmp lépp yemb di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi un peu partout dans le monde di bàyyi xel télévision bi di ma fatixul Bichri di leen wax ne leen foo leen nekk ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ayasa min nilaawu inda jeewali